asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey jii di talaata dëppook juróom-ñeenti fan ci weeru safar di juróom-ñetti fan ci weeru octobre atum 2019 Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides dikk na nemmiku si liggéey bi nga xamante ni daara Hizbut Tarqiyyah mi ngi koy def ànd ko comité d'organisation bi ci waajal màggal gi fii ci buntu kër Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké mbégte mu am solo moo xamante ni dong yëpp ak bokki taalibe yi nga xamante ni gis nañu ñëw sëñ bi yëg ko gàttandu ko teeru ko kuréelu xaside yi teeru ko ci buntu euh, exposition bi gunge ko ànd ak moom bi ma agsee nag jëwriñu daara isbu tarxiya di Serigne Atou Diagne di commissaire des grandes expositions moo ànd ak moom won ko liggéey bi banqaas yi nga xamante ni waxtaanee nañ ko ren lenn lu ci nekk mu indi ci ay leeral ànd ak moom itam ci ñi nga xamante ni ñooy waa Rawdu Rayaahiin te sëriñ bi féetale leen lu jëm ci wàllu liggéeyu université bi ñoom itam barab bi ñu exposé ñu def ko ci la sëriñ bi agsi fii ci mbaar mi am kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko fa ginnaaw bi nga xamante ni sedd na liggéey bi rafet rafetlu ko ànd ak bi nga xam ne tey jii lislaam jëpp sañ nañoo feetu ci 18 safar fukki fan ak juróom-ñett kenn ku ci ne wóor na ne sa jëng yi nga xamante ne moo doxoon sa digganteeg àgg suñu borom sëñ Tuubaa moom moo ko lijjanti kon noo ngi sant bu baax ci sa dikk gi fii ci exposition bi nga xam ne àdduna sépp mën nañ cee jàngee ñu xam ne sëriñ Tuubaa mbiram mooy law xalima naasu maahu naa la baadaroo ilaa talabihi walakin la maa jahiloo talaboo xayruhu ku xam mbirum sëñ tubaa doo wuti ji lenn lu moom lu waay di fàggu di ko wut di ci sonn am sëñ tubaa ko gën a wóor gën koo matale gën koo sotti ndax njëriñal tey ak ëllëg lay doon te day ànd ak bilaa aafatin wala kadarin wala stidrajin wala cheyin yasuwu fil xaali wal maali loolu sëñ tubaa rek ko am jërëjëf Mbàkke yow mi ñëw fii mel ni yaa indi tampon bi nga xam ne moo tax ñu xam ne lii nuy def sëñ nangu na ko kon ci turu suñ jëwriñ sëñ aatu ñoo ngi lay sant dina la cant sant cant koo xamante ne lott nañ ci ci ci ci ci ci defee ko ni mu waree waaye nag na la wóor ne noo ngi yeesalaat sunu lépp ci bisub tey ci ni sëñ Tubaa defoon la woo xayaat yi wa mawti yi wax dawoo wala woo sirri wa jëhri wa yux nii nii bi alaafi sunu dund ak sunu dee sëñ Tubaa rek koy moom dootuñu yëngooti ci dara lu sëñ Tubaa kon dimbali ñu wërsëgal ñu ak xam bët du ñu teg suñu tànk fu ñu ko war teg waaye fas nañ yéene kenn du nu moom ku dul sëñ bii. nii la ko sëñ aatu waxee bu la neexoon lépp nga jël ko maye ko yaa ko moom lebuñ ci lenn ñaanuñ ci lenn saraxuwuñ ci lenn danoo dajale buntu tawféex yi nga ubbil ñu ko mu jàpp ni lool lu waay yóotu jot ci ñu liggéey ko ba mu agsi nii kon ñoo ngi lay sant di ñaan nag ñu amaat barab yu gën a yaatu ba nga xam ne exposition bu ñu jógee ci stand bii fukki hectare ñoom ngi lay yoo xamante ne gaaral rek day leeral mbirum sëñ Tuubaa ku dugg sa woto dugg ci stand bii da ngay duggaat sa woto demaat ci beneen stand lépp doon loo xamante ne day jéem a leeral mbirum sëñ Tuubaa ndax moom moo wax ne ah moo wax ne nasaxanii minal waraa baaxil xadiim allamahum bi annanii abdul xadiim moom bokkul ci bokkul ci doomu aadama yi suñu borom ko sàkk moo xam lu mu doon waaye ba mu ko sàkkee ba noppi nag suñu borom moo ne man dinaa xamle kan mooy sëñ kon xam le sëñ tubaa ab jaam lott na ci waaye ndokk bi ko suñu borom sa sol boppam kon sëñ tubaa àdduna sépp nañ xam mooy kan bilaa idan aw alami dina li ñëpp dina ñoddi ñëpp dina teg ñëpp ci yoon te kenn du sonn te xat du damm jërëjëf Mbacke. sëñ Abdou Lahad waxoon nañu ne. waaw nee na sëñ Abdou mu mu baax ma sa waajur wu tedd mooy waxoon nañu ne ñu. ñu ñëw fanaan ak moom ba bët set. ñu ñëw fanaan ak moom ba bët set. bi ñu xëysee ci moom. bi ñu xëysee ci moom. mu mu ne ah nuyooguñ ko mun a xam ngeen fu ngeen tolloog sëñ Touba nu nuyooguñu ko sax mu ne xam ngeen fu ngeen tolloog sëñ Touba Taye. ma ne ko déedéet Mbacke. sëñ Atou mii ne ko déedéet Mbacke. mu ne ko àgg naa ak yéen ci su ngeen bëggoon def lu ko génn dootu leen ko mën mu ne àgg naa ak yéen su ngeen bëggoon def lu génn sëñ Touba dootu leen ko mën jërëjëf Mbacke donc kon defe naa lii moom mooy kaddu yi bu bëtoon une seconde képp sax doyoon na àdduna sépp a ngi koy suivre ñu ngi ko def en direct dongo yi di ko bëggee di ci sonn di ci di ci soññ di yëg ne fi ñu toll ni yoon wi yeesaat na. laataa waxtaan waa jeex keroog. waaw nee laataa waxtaan way jeex keroog mu wax ni mu wax ne xam ngeen lu ngeen doon ci nun xam ngeen lu ngeen doon ci nun ma ne ko déedéet mu ne ko déedéet mu ne ay wéttal ay wéttal ngeen mu ne mbaa yaakaaru leen ni wéttal mooy du mooy sësooy mbagg mbaa yaakaaru leen ne wéttal mooy sësoo ay mbagg mu ne ko xaw ma ci dara mu ne sa nag du caageen sësooy mbagg de wéttal mooy wéttal mooy ne bu fekkoon sësooy mbagg la nee na nee na bu fekkoon ne sësooy mbagg la takkandeer ak borom a ànd takkandeer moo borom ñoo ànd waaye wéttaliwu ko waaye wéttaliwu ko ne kon wéttal mooy kon wéttal mooy bokk bëgg bokk bëgg pexe bokk pexe bokk yéene bokk yéene bokk melo bokk melo bokk fu ngeen jëm bokk fu ngeen jëm nii ñu mel ak nii ñu mel ak yow jërëjëf Mbacke mu ne waaw sëñ Ahmadou Badawi mii lay waxal nee na ak ñoom ñooñu <laughs> suñu kilifa yi tedd yi nee na li am solo rek moo di tawféex ndax ñoom ñii moom sëñ ba mu ñu xamee moom Hizbut ci la ànd ak ñun nee na boobu dafa daan wax ne gëmewuma leen gëmewuma leen mu ànd ak ñun ci loolu ànd ak ñun ci loolu ànd ak ñun ci loolu ba am yàqin ci noonu noonu digganteem ak nun noonu la demee nee na lépp sëriñ bi nee na waxoon na ne sunu ànd bii noog moom nee na du nun du moom nee na pàgguteefu sëñ rek la nee na sëñ lu mat a fàggu fàggu na ko tey jii ak ëllëg nee na jubóo na ceeg boromam nee na bu ñu ko gisul bu nee na bu ma ko nekkal. nee na ko nekkal. bu ñu ko wooyee. boromam mooy wuyu. nee la def. nee na li ci am solo nag. nu xam ko. di ko jéem xam waxtu wu ne. nee na du lu doomu aadama mën a xam sax. waaye nag doomu aadama am na lu ko yàlla cërale. la mu ko cërale nag. na ca def kem kattanam. ngir xam sëriñ bi. lu ma ci loo ci xam rek. mu nekk njëriñ lu rëy tey mu nekk njëriñ ko jéem a dund nag. nee nañ ko jéem a dund nag. suñ ko jéemee xam ba noppi. suñ nañ ko jéem a dund. buñ ko dundee buñ ko dundee rek. neen texe àdduna ak àllaaxira ngoog. da ko dund. fii di ko dund. na boo demee nag fekk fa la ko taxoon a jóg. neen noonu rekk la demee neen sëñ bi noon rek la demee kon sant sant yàlla rek la ñu war a def te xam li am nag nee na xam ngi weesuwul li mu wax rek nañ ko jéem a xam di ko jéema a dund neen bu ñu ko dundee rek nee na aalamul islaam yëpp benn kuréel nee na benn kuréel dootu la mën a kawe bu ñu dundee sëñ Tuubaa bu sëñ Tuubaa benn kuréelu lislaam dootuñu mën a kawe dootuñu mën a kon nee na kon noonu rek la dem sant bu baax nag jërëjëf ni mu ñu ko waxee woon rek ñun dañoo am rek nekk xam rek si nekk ndeysaan lu gën a xam si gën ko dund gën gën di jëm kaw di gën a xam sëriñ bi gën koo dund rek gën di jëm kaw di wéy sëriñ noppi fii ndax sëriñ bi dafa noppi fii ci kaw suuf ci kaw suuf noppi ci kaw ci kaw ci kaw mën ci kaw mënaw laala ànd ak ñoom ñi gaa yàlla ñu fii suuf nee na yàlla yi fii ci suuf ak ya ñëpp jox leen seen àq a dem ca boromam des fa boromam kooku a xam rek dañuy jéem a na li gën a yéeme a yéeme doomu aadama mën a xam neen doomu aadama mën xam nee na sëñ bi ñi ma bokkal boromam ñëpp. nangul nañ ko. nangul nañ ndax da leen jox seen àq ba mu mat sëkk. ndax daf leen jox seen àq ba mu mat sëkk. la ko la ko suñu borom def. suñu borom def ko ci moom. boromam def ko nangul ko ko. ñu ko ko. kookoy sëriñ bi kookoy sëriñ ci li dañuy jéem a xam rek. ci xam rek. nee na dañuy jéem a xam rek. sant rek nu war. waaw nee na la ca dolli ko nag mooy lii rek. yitte yëpp ñu jëmee ko ci moom sëriñ bi. li li doomu aadama di ci ci ci ci lu bëgg ci boppam ci yiw yiw ak nag yiw alaaxira lépp lu ci dund sëñ. nee na li doomu ci boppam lu mën a doon ci yiw àdduna ak alaaxira lépp mi ci dund sëriñ bi rek. dundee sëriñ bi rek. nee bu dundee sëriñ bi rek. yaar yooyu dara du ci manqué. yooyu dara du ci manqué. kon loolu li ci am solo mooy loolu. li ci am solo mooy loolu. nañ góorgóorlu bu baax nañ góorgóorlu bu baax. suñu yitte jëpp. nañ ko def ci sëriñ bi di ko jéem a xam di ko jéem a dund. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. yéen doo di ko mënut a ñàkk a wax ak yéen. <laughs> ak ñi ñi ñu bokkal ñi ñu bokkal doxin bi. loolu loolu moo indi wax. Mhm. waaw loolu moo indi wax. kon day dellu si waat nag. day dellu si waat nag. ci lañ bëgg a ñun ñëpp na donc yóbbaale nu foofa rek. yóbbaale nu foofa rek. ñun ñun ginnaaw euh, am sëñ bi moom te yàllaa koy def ci coobareem waaye ginnaaw am nañ ko ba noppi nag lu ñu gën a xam sëriñ bi gën a yokk gën a lu ñu gën nga gën a dund gën a yokk loolu xam-xam rek lu ci a dimbali xam-xam rek lu ci mën a dimbali loolu moo tax euh, xalaat ji li nga xam ne dañoo am toog rek lu ci ne fàggute fi sëñ bi lu ci ne day toog bàgg ci mhm. nag euh, alhamdulilah am na am nañ toog bàgg ci Euh, maîtrise bii moo moo desoon ci li nga xam ne wane woon na ko li mu mënta ñàkk loolu moo tax gis gisuma lenn gisuma dara ci saayis lu dul nag ñu ko jóg ci xam tam maanaam jëm jëmal ko nag ci madrasa am boobu moo noonu doomu aadama it yàlla dana ko bi moom mooy jóg ci xam-xam bi ñun ñëpp kuy am doom wala nga am jabar wala nga am jaboot nga góorgóorlu jëme njaboot gi ci njàng tubaab borom rek ko dese ndax atelier dafa tawféex la. yàlla koy defal boobu si coobareem. waaye nag li koy téye di ko sàmm di ko dundal di ko dolli mooy xam-xam loolu maa ko wax moom rek la eh, moo tax bi nu xalaat bi bi nu accès ci lii bi suñu xalaat dañu dem caa yem. mënuñu ko ñàkk a mënuñu ci ñàkk jëm ndax dana dox bàgg ci. lépp pàggatu sëñ Tuubaa la waaye dañoo am moo tax bi ma ci yemee yëkkati sama kàddu ci jàngu ko jàngu bi li ñuy université université euh, loolu ma santaat bu baax nag ma santaat suñu borom bu baax mu mu mu bëlëg sëñ Tuubaa santaat sëriñ bi bu baax mi suñu lépp téegal ak dafaagul ñun lépp téegal ak bi ma yëkkatee sama kàddu ci loolu maa ngi ñoom ñëpp ko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 wàllu xam-xam bi ma teg ko ci yow sama xel daal ci rëteex liggéey bi réy na lool waaye sama xel daal na ci ndax mag taal bi nekk yëpp ko bokk te loolu loolu xajunu ci waaw sëñ Tuubaa xajul ci daray ngi ci daara ji li nga xam ne moo waral daara ji si Amadou Bada bii moom laa ko dénk ak ñi mu ko ñàkk ak i nattangoom ñi mu ko bokkaloon ni bëgg bëgg dem ñi nga xam ne kenn sonal leen ñoo sonal seen bopp ci ci rapport mooy suñu muy njawal suñu tubaab gii ñii ñu tudd ñi ñu jàng ñu jàng kenn sonal leen ñoo ñoo yàlla dañoo am tawféex am jom amu fit di jàmbaar amuk dogu teg seen tànk si la saratan mustaqim ñooñu sëñ tubaab ni mu ni mu ni mu ni mu faggoon dara rek ni la faggoo ñooñu ñoo ànd ñoom pàggute fa sëñ Tuubaa rek lañu ndax koo xam ne sëñ Tuubaa mi ngi ci yow nga am yittiwu yittiwu yittiwoo diine yittiwoo xam-xam kooku sam naa la dan du yomb loolu nag ñoom ñu ngi nii di doon rek waaye alhamdulilahi rabbil sama xel dal na ci ñoom li ñuy wuti mën nu ko ñàkk te ëllëg mooy sëriñ bi ñoom nag sama xel dal na ci ñoom ci liggéey boobu liggéeyu xam-xam boobu moom loolu noonu rek la daara ji ak eh, ñi ñi ñi nekkoon ñi ñi ñi nga ñi nga xam ne démb ak bët ki ñu ngi doon sonnee xam-xam mooy daara ji ak sañ sañ xamal ba def ñoom waaye yéen ca ci njëlbéen ga dañ doon jaaxle am nañu bari dañ doon jaaxle ci yéen waaye comme ci waxal dama koy wax ne ko ndax ndax suñu borom dafa tële dara ndax suñu borom dafa jombalee daraam sëñ Tuubaa yéen foofu ngeen nekk yéen yéen foofu ngeen nekk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 waaye yéen yéen yéen yéen wéy leen rek. Mhm. <laughs> sëñ Abdou Ahmadou ñoom laay waxal yéen waxuma ak yéen. damay wax damay wax damay wax ne. Mhm. damay wax ne mhm. sëriñ bi. daanaka ah, ci li ma koy textilee damay wax sëriñ bi leneen i boromam la ndax jullit buy buy buy wax bu ne war naa na sédd sa bokkale. jullit buy wax. ak ak wax ak nu ko ñor-ñor na sédd bañ a bokkale.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 lu ngeen bëgg ci liggéey bii seen taxawaay bii ak nu ngeen ko bëgg lu ngeen ci bëgg te mu leen ko ñàkk wax leen ma ko ma ànd ak yéen ba jeex tàkk non non mun sëñ Mountakha yaay yaa ngi dégg <laughs> <laughs> baax a baax ñëpp a ngi dégg ñëpp a ngi dégg waaw ah, loolu fii bi. sëñ Tuubaa moom moom dañu dañu fa daa yëmul fenn. daa yëmul fenn. lu nekk ñu nekk ngi ci. classe bu nekk ngi ci waaye ñun ñëpp ñoom sëñ Tuubaa lañu yéen kenn ku ci waaye liggéey bi nag. dafa am dox dafa dafa liggéey dafa am nu ko koy doxalee waaw liggéey bi dafa am nu bi moom dafa am yoon waaw ñëpp xol bu sëñ Tuubaa xol boo xam ne sëñ Tuubaa nga ca nga ca xol ba kooku am na tawfeex ba noppi am na tawfeex ba noppi waaw waaye nag liggéey bi moom dafa am nu ko aw yoon yoon bi mooy yoonu am la ak yoonu xaas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 ginnaaw nag euh, bi nga xamante ni nemmeeku na liggéey bi def waxtaanu soññe wu am solo ci la ñaanal ñëpp moom Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ni ñu ko defee woon nag ci bi muy dikk ñu daare ji ànd ak kuréelu xasida bi ak mbokk yëpp sëriñ Ahmadou Badawi ibnu Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké waa Rawdu Rayaahin ak mbooleem mbokki taalibe yi fi teew gunge sëriñ bi ba ci biti ànd ak moom ci mbégte mi nga xamante ni indi na ko ci barab bii di firndeel ne liggéey bi lu sëriñ Tuubaa nangu la ko ñaanal nag mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéey Serigne Touba mu matale ko te ñaan ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatu.